ñu gimmee xam ko xeebatuñu suñ dara royatuñuy tubaab mën nañ jàng xam-xam bi waaye royatuñu leen moom moo moo ñu ci dimbali eh, ñoo ngi ànd ak naar yi bokk suñu diine lislaam waaye royuñu seen i seen i aada dañuy doone wolof loolu seen blaa dañu ko jàngal loolu nag kon jëmm la joo xamante ne lu nu amati rek moo ko defal ba ñuy jàng tubaab meloon nañ melokaan boo xamante ne ba ñuy doon gën doon ndaw xasida képp bu ñu ko bëggee jàng dañ ko daan bind ci li ñuy wax transcription française ci baati ar baati français lañ koy lañ koy jànge ah boobu tarabal xaala min nga def A def def B A ak B T ak U noonu lañ daan jànge ci njëlbeen gi waaye doon ay ndaw yoo xam ne bëgg nañ sëriñ bi waaye xamuñu fu ñuy jaar sëñ Abdoul Ahad dimbalinu dikk sol ci suñu xalaat suñu fii lay fii lay tamit ndokkelaatee ak euh, kañaatee suñu jëwriñ ji mooy sëñ mm-hmm. ndax da ba mu jeexalee njàngam euh, école normale war a dem jàngale ji daa ñëw jébbal léppam ay diplôme am ak léppam jébbal ko sëñ Abdou delloo xaalis bañ ko fayoon ne leen mënuma leen a mënumaa lekk seen xaalis te duma leen liggéeyal sëñ Tuubaa rek laa fas yéene liggéeyal euh, daara ci lañ sosé ak daara ci Sicap Rue 10 1981 daara jooju ci lañuy ñuy def bu ñu jógee université wàcc dem daara ja jàng ijantu jàngat sunu murit di nga xam ne léegi dem plage xewi na dem ci barabu fowukaay yi xewi na ndakaaru mujj doon noo xamante mel ni daaree tarbiya ci noonu doon daaree tarxiya lii daal sëñ Abdou Lahad moo nu ko defal ba nga xam ne dem nañ ba seexlu jikko ju dul jikkoy murit ay royukaay yi ñu amoon mooy mag ñi sëñ Tuubaa yaroon bëggatunoo sol it eh, eh, lañ daan sol en tant que étudiant dañoo bëgg mel ni Sëñ Abdou Lahad kenn rek lañu xooloon muy moom ñu gis muy sol li léegi sax faf doon na loo xam ne dañu yaakaar ne Hizbut Tarqiyyah da ko imposé fekk imposé wuñu ko Sëñ Tuubaa ko indil boppam rek mu doon loo xam moom lañ bëgg di ko def kon nag tey jii dañoo ñëw ni murit yëpp rek si aar si Sëñ Amsa ci dem nañu ci eh, eh, sëñ Sidi dem nañ sëñ Moustapha dem nañ sëñ Cheikhouna bu ñu mënoon bu ñu munoon amul kenn ci njaboot Sëñ Abdou koo xam ne bu bu ñu ko mënoon dinañ taxaw fépp ndax ndax ndax ndax ndax ndax ginnaaw ñu ngi leen di gis kon mu ñoom la ñuy xoolee jëmmi sëñ Abdou Lahad yàlla nañ fi yàgg te wér te lii bis bi ñu yàgg ko taxawee lii rek la bis la boo xam ne euh, du du bis dul bisu fàttaliku ak gën a xamaat suñu bopp ak doonaat ay taalibe yi sëñ Tuubaa yàlla nañ ñu nangul jërëjëf. sëñ maa ngi leen nuyu di nuyu bokki taalibe yi nga àndal di la sant di la gërëm démb jëkkas tey sa tànk yi neex na ma lool rafetlu naa ko itam lool man jànguma leen xam naa leen bu baax ndax samay dëkkandoo ngeen ñoo dëkkoon fële ci asalem te ko jiitu ñoo dëkkoon ci kër Sëñ yàlla dogal itam seen ci Sëñ Abdou mu suuxat leen sarse leen ba ngeen fees del def ci yéen courant bu bu bu bu mat sëkk kon rafet nañ jot ci yéen layoo ngeen nag bindeef yi ñu bàyyi yaay leen ndax am na fu ñu leen dëkkale woon am nañ fu ñu leen féetale woon te dëkku leen fa féetewu leen fi ndax seenu doxin démb ba tey dara soppiku ci ci sëñ Abdou Lahad ba nagani sëñ leen jëmbat suuxat leen sëñ Saliou itam def na ci lu bari waaye sëñ Mountakha itam ngeen àndoon moom démb ba tey jii ba muy naqari mooma ba muy métti yëpp ngeen ànd ak moom ni ma ko waxee sëñ mun sëñ mun taxaa ñu ngi koy waxee huitième xalifa waaye troisième xalifa la comme sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad mooy troisième xalifa ci catégorie bu mbokk moom itam mooy troisième xalifa ci catégorie bu mbokk yàlla dogal dem ñu bokk ay mbir ndax alxuraan nañ bëgg ak xasida ko ne gis na ne euh, gàmmu gi ni ngeen koy kii bi koor gi ni ngeen koy dundalee ni ngeen ak ak ak lañ leen di defaloo ca daara ci xasida kam waxoon na ne leen xasida ku ne dañu cee fekk ndax mooy seen liggéey ah, leen dañu ci fekk mooy seen liggéey ngeen di ko jàng jàng mu neex mu leer naññi yaatal daaj yi di sol ay bàyyi laa di takki maxtu kuy rey murit bu leen gisee <laughs> kii lay tàmbalee ah waaw lépp sol nag mooy murit dañu amut dara léppam sëñ bi la ko moom yooyu nag da ngeen noon noonu ngeen doxe atum yi ku ne jàpp ay milliards la fiy bàyyi ah? waaye léppam <coughs> na sëñ bi laa defoon rek la def bàyyi fi dara Sëñ Abdoulaye yor na xilaafa gi ñaar fukki at ñaar xaw ma yaakaar naa li fi bàyyi lépp weesu 18 mille francs ci poosam nee woon na itam noo bokk li ñu doon waxoon na ko fii maa ngi fi ñu leen di yërëb ak yéen ab sarax waaye su ma leen wanee naaw naa leen bàyyi loo xam ne ku leen mere du ko maa a nangu ngor kenn mënu koo nangu jom kenn mënu koo nangu fulla kenn mënu koo nangu dëgg kenn mënu koo nangu loolu nu bàyyi nag moom leen bàyyi yéen ñi itam àdduna lu ngeen am yi a ko amal seen bopp waaye fañ jëm na nga xam ne dara du fa doy bon xotti gerte ñoo koy bokk yoon boobu leen jaarale ni leen tamit ku leen di mere na leen ma ci sëñ Tuubaa fu sëñ leen bu leen fa fanaan sëñ bi daal loolu wax na boo ñàkkee sëriñ bu gën sotti ko bu dee bu dee bu dee soo bu dee ko kon ku leen di mere na leen ma sëñ Tuubaa mas sama bi fi sëñ bi fi sëñ bi ñuy màggal sëñ ma doon ko organisé bëggoon mu jàngal la ma at wax wax wax ju wér te sëñ doo ko waxoon ne ñetti ñetti bis yi lañ sañ a jàng leetu xadar màggal gu màggi ak ak ak gàmmu yaakaar naa ak poroxaan ak poroxaan loolu at at waxoon ah <laughs> dégg kon dañ leen digal loole nag wàccu leen ko ba di suñu nag yàlla na yàlla seral ay yaxam li tax sëñ Tuubaa amul tàngan atu jàppoon nañ ni kenn mënu ko wut waaye gis ko rek bi nga ñëwee fàtte nañ aatu fàtte wuñ ko waaye fàtte nañ ko ndax euh, lépp a ngi dox lépp a ngi yokk sëñ Tuubaa demee noonu kon nag yoon wii leen sëñ Abdou euh, jëmbatu te ngeen jaar ci te waxoon na itam dëkk bi ngeen jëm ak yoon bi ngeen jaar du ngeen ko wàcc bàgg ca <laughs> tey neen fi ne dama leen suudeeg sëñ Tuubaa ba su ngeen bëggoon dajji ko du ngeen ko mën kon ku leen mere kon du leen maal tous ndax magaleen dafa ah. ah, dé dañ ne ko ñaan ñàkk soo jëndee a moom sëñ Tuubaa nag lim yor moomu ko alal suñu borom da nga da koy jaay am na loo xam sëñ moo na xam ko wax yat yat jóg fi mu gan gu ñëwoon sama nekk mu dal ko man kook nag bàyyi la ci man mu dal ko sama nekk ba ngoon jot mu ne ma mu indi añ mu ne ma ñuy def ci añ da koy boole wala dañuy bokk ak ma ne ko ndigal di laa jël loo ci wax njëkk mu ne ma yow dama laa jël bu normal mukk ba bañ a bokk ak moom de daa ne amet gi moom nanga ko moom bokk moom te bu mu ñëw mu ne daam lu ma la bëggal ko xam ne bu sëñ Tuubaa amuloon doo ci yoon wi lu muy ab taalibe jàppal ne kooke la maam sant ak sant Njaay ñe la mu defal sëñ maam <laughs> la ko sant Njaay defal may ko le may kon yoon wi noonu la demee hmm? kon ñaan ñàkk sa gën a yaa moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah amiin amiin amiin amiin amiin